Euh, dafa doon euh, benn mébét boo xam ne coopération canadienne moo ko amoon euh, jëm ci mbiru ndaw ndaw ñi bu ñu nee ndaw ñi mooy xale yu jigéen yi nga xam ne ah léeg-léeg dañ leen di métital surtout nag di leen sàkku dégg nga moom la ñuy woowee donc violence sexuelle ak lépp loo xam ne daal dafa jëm ci aar leen ci ci ci mbir moomu ci loolu nag la Seforep daal di lëkkaloo ak réseau civil Jigéen ak réseau des jeunes euh, pour la, la lutte contre euh, l'excision et donc euh, les violences faites aux femmes donc ñu daal le lëkkaloo daal consortium daal après bind ab bataaxal ñu ci sélectionné financé son activité CRDI nag coopération canadienne la liggéey bi ñi ñu bëgg a def nii ay ay ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy def ci caajaay jëmale ko ci xale yi jëmale ko ci seeni ba mbir yooyu nga xam ne dañu koy jooytu bés bu jot ngeen koy gis ci press bi di ko gis ci télé yi di ko gis ci réseau sociaux yi ah ñu fexe ba mu wàññeeku fi buñ ko mun fi buñ ko fi mënul a jëlee. Euh, liggéey bi dañ koy def euh, recherche la ci biir recherche boobu mu am action léegi nag buñ ko doon def dañ ko war a def ci terrain bi donc euh, ñu ñu war a seet ci gox yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal. ban moo ko ci ban lañ fa mën a dem ba def ko fa caajaay euh, dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne ah, dañu nekk euh, ay centre nekk ay carrefour loolu am na beneen bi mooy donte am na ay activités yu ñu fiy def gis nañ ne am na lu ko fa manqué yoo xam ne waroon na ko mën a am bu ñu xoolee dayo euh, population ni mu toll waroon na fi mën a am ay ay ay structures yoo xam ne dinañu mën a euh, jàppale jigéen ñi taxawu leen ñu gis ne loolu xaw na fee manqué te it ñu gis ne population bi tamit dafa naan population bu takku takku ci dayo waaye aussi takku ci pas-pas ci mbiru euh, wér-gu-yaram ñu nekkoon caajaay doon na daal euh, ab gox boo xam ne war nañ faa mën a taxawal projet bi léegi nag bu ñu taxawlee projet bi Caajaay ñu ne kon nañu seet ca ca wet ga dëkk boo xam ne xaw naa méngoog Caajaay ci euh, euh, ci ci askan ñu ne daal ñu mën leen a tëkkale ba nga xam ne projet bu jeexee li ñu gis Caajaay ñu xool na nan lañ koy tëkkalee yeneen dëkk yi comme Tivaouane dégg nga pour xam li li fi def lan la te loolu ñuy def nag bu ñu ko jëlee ñu jël ko jébbal ko Euh, euh, gouvernement bi ñu ngeen ñu xool naka lañ koy wesaare ci biir Sénégal. Euh, projet bi dafa am buñ ko tënkee yëpp ñetti ñetti pàcc la bu njëkk bi mooy ñu def benn gëstu boo xam ne dañuy seet mbir mi nga xam ne moo ñu tax a jóg mu jëm ci méttital yi ñuy méttital xale yi ak sëy yu teel yi nga xam ne ah dañuy gis ne fa muy mujjee li ci ëpp du neex ñu xool. naka la ko dëkk bi gisee naka lañ ko dundee ca loolu buñ ci yéen cay jëlee ñu daal di ko tënk nag fexe def ko ay action action yoo xam ne ay waxtaan la ay ay nirum paj la dafa jëm ci mbir yu bari yooyu bu ñu yooyu bu ko defee daal di ko nag def ko ci biir caajaay buñ ca jógee ñetteelu pàcc bi mooy ñu defaat beneen gëstu boo xam ne day seet fa ñu jóge woon ak fa ñu toll bu projet bi jeexee lan la projet bi indi loolu moy ñetti pàcc yi nga xamné projet bi mom mom moko taxaju moy touché au final 1150 personnes 1150 personnes lañ bëgg a toucher mais ci 1150 yoy égguñ fa ñu ngi si sept kon yaakaar naa def nañ xaaj bi de ah li ci des bariwul de kon baxna <laughs> donc profil yi lañ am quartier yi yëpp def nañ fi ay activités yaakaar euh relais yi fi nek ak badjon gox yi kenn ku nek am na si quartier yo jógee.

kenn ku nekk naan yaa war a solu maa war a xool yaa war a solu maa war a xool buñ paree nag daal di confronter les idées kenn ku ne am ci loo ci jàngatee donc am loo wax sa morom sa morom tamit am loo ko wax kenn ku ne changer comportement te loolu moo nekkoon euh, objectif bi donc voilà les les les les les les zones touchées ici à Thiadiaye et c'était en gros les activités qu'on a eu à réaliser maintenant buñ ñu paree ci activités yooyu am na yoo xamante ni bëgg nañ ko def aussi mais aussi ak yéen toujours parce que projet bi du yéen yéen a ko moom donc si vous koy par exemple c'est des activités yoo par exemple deuxième rencontre du comité de pilotage dañ ko def projet bi di ce qu'on appelle le comité de pilotage bu ñu un décret le euh, le défunt sous-préfet moo président bi paix à son âme comme nekkut fi voilà c'est monsieur Faye qui est maintenant le président du comité de pilotage chaque trois mois nous rencontrons. le bilan des activités nous exposons que le comité qui est composé de 13 membres donc ñu validé pour nous montrer a pour lii sax ñu def ko il fallait ñu gis leen ñoom démb am na ñu bëri ñu fi ñëwoon comité de pilotage bi ñu wax leen ñu valider pour ñu ñëw soumettre ko population donc dañuy wax ne rek kon projet bi am na yoon bu jaar donc balaa muy yegg si fii nii du ñu ñëw rek tëb tëb di def. après comité de pilotage ce qu'on a fait aujourd'hui c'est l'atelier de restitution nga xamante ni lépp loo xam ne jëlee nañ ko fi am donné waruñoo ñëw rek dem teg ko ranger ko non non dañuy woo les leaders wax leen ko nga ni ñoom xam nañ lan lañ fi toogee luy suñu objectif ak lan lañ jot def ak li waxtaan bi aussi dinañ def ce qu'on appelle la conception des supports de communication loolu que koy def tey dañ koy def ak waa Caajaay boo leen xoolee fii am euh, prestataire de santé à Caajaay euh, bon autant pour moi euh, il y a chargé de com kii ñëw ñu def benn cellule d'appui etc. cetera quelques membres toujours de Tchadjaï, nous avons fait ce qu'on appelle la conception des messages nous ko ñëw véhiculer à travers peut-être les médias surtout comme Djegem TV nous avons commencé à faire fi ñu Nous avons def ay émissions ak yoo xamante ni après di gis ay émissions intéressantes, intéressant avons commencé euh, vous les relais avec les assistants sociaux etc. Nous avons commencé à ngi aussi yow sax si nga bokk da ngay def <laughs> wax na deug def na sank ben <laughs> amna dinañ ko seetaan ci kanam euh, Seforeb nak mo waroon def yimay wax ni yeb buma ma réseau de réseau sigil jigen, nga xam ñet ñuy tay ñoo leen fi téwal ñom aussi ñoo nekkon def activité de causerie éducative yima doon wax ñom ñoo ko doon mettre en œuvre mais ñu ko doon def ak euh, tata mam ñaan di madame Dieng di nekk jigen bu jambar vraiment depuis lors togul ben yor toogul ben yoon vraiment elle mérite vraiment ses applaudissements depuis lors keureum lay nek ñu nek ci plan d'action yi mu wóor vraiment nit ku jambaré mu teewal fi nak wa réseau civil, Jigéen ñun ak ñom ñoo nekkoon di def activité yi ni donc buñ paré dañuy def ce qu'on appelle les dialogues communautaires en tant que tel yi nga xamante dans le vrai sens du terme lolu buñ ñu koy def dañuy jël relais bu nek sa koñ nga défal ñu fa ben dialogue bo xamné ci bir dialogue bi képp ku fay leader képp ku fay jeune ak beneen couche bu fa nekk dina mën a ñëw nekk ci dialogue boobu ñu jël question waxtaanee ko ci question boobu mu am ay engagement ñu def le suivi des engagements en même temps ñu def ce qu'on appelle le suivi évaluation étape par étape parce que bu ñu ko defee nan surtout ba def le suivi des engagements par rapport aux différentes parties prenantes yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir ci biir ci biir dialogue bi loolu bu weesoo réseau des jeunes nga xam ne représenté par monsieur Maurice ak Aïcha oui Aïcha je pense Aïcha est là et Maurice nous avons ni ñoom représenter représenté le réseau des jeunes peut-être maa wax alors non parce que temps moo ñu ko moo ñu ko permettre mais ñun tamit am nañu ay activités yu am solo yu ñu war def fii lu ci mel les émissions radio actuellement boo leen génnee yéen a ngi seen Maurice fële mu ngi enregistré ak euh, beneen Maurice bi ci les adolescents sur des thèmes très très intéressants boo xam dina jaar ci Jegem TV jaar ci chaîne YouTube am jaar ci groupe WhatsApp bi nga xam ne waa Caajaay ñu ngi si ne comme kenn ku nekk mën xam lan moy fi nekk lan moy projet bi ak thèmes yi nga xam ne ñu ngi koy développé nga xam mu ci par exemple la promiscuité mu ngi si par exemple euh, les violences sexuelles viol etc. mais aussi surtout la communication ado ado parents. muy lu am solo loo xam ne dañ ko war a xoolaat ko parce que loolu buñ ko réussir rek réussir lépp donc loolu bu passé ñoom tamit dinañ def ay jeunes en SRAG ci biir école yi ak yéen incha allah CM bi fi nekk ak ak ak ak ak les deux euh, les les les écoles primaires et autres. Nous parlons aussi de def ce qu'on appelle des sessions d'échange ado prestataire Nous avons eu dinañ ko def parce que nous avons eu wàllum communication ni avons aussi ce qu'on appelle la sensibilisation les deux nous bu ko allié yaakaar résultat Voilà, ah, boog donc nous moo vraiment yi nga peut-être à part le CFOREP qui doit vraiment faire une formation avec les prestataires de santé nous avons aussi dina nous outiller davantage pour une prise en charge holistique des violences sexuelles et des mariages d'enfants à je vous remercie